quelques secondes rek. Mhm. ci notre président Bassirou Diomaye Faye naka naka nga ko gise il est calme il est serein. je fees na bi. waaw je vois que c'est quelqu'un qui me semble être attentif. Mmh. tel que je l'ai connu inspecteur des impôts il était toujours en retrait quand même. Mmh. c'est c'est c'est quelqu'un qui me semble être très froid et très lucide. chargé ñu ko dénk. mais bu ànd dal rek. dénk boppam yàlla noo dina dem mm-hmm. xam ne nguur moomu ko yàlla sàkk ci pouvoir am rek dénk ko jox ko ko lépp lu muy wax wala lépp lu muy def rek na si xool yàlla bu si xoolee yàlla rek doxal